lépp nag mi ngi dépendre mi ngi aju ci gouvernement bi ñu war a taxawal bu bees gouvernement boobu nga xam ne ñii naan dañuy rocci Amadou Ba duñ ko rocci parce que Idrissa Seck lañ ko bëggoon a jox gouvernement bi waaye comme jubóowuñu ñoom ñaar Idrissa Seck dafa bëgg a nekk candidat. ñuy dem ba ci biir ñu waxtaan diisoo na nañ ko bàyyi mu génn nekk ci biir opposition bi pour lëmbee opposition bi pour jaxase opposition moom Idrissa Seck moo tax ñu bàyyi ko mu génn te ñoom ñoo koy financé Macky Sall mooy financé Idrissa Seck mu def nag kaaw Amadou Ba ci biir gouvernement bi gouvernement bi ñu war a taxawal nga xam ne lii négociation Idrissa Seck Macky Sall bi lii may wax nii moo ko téye moo téye gouvernement bu bees bi daal parce que Mansour Faye mom lañu ñu jox ko assemblée nationale bu gagné won Saint-Louis gagné wul Saint-Louis mu ñàkk Saint-Louis Mansour Faye bëgg nañ ko def poste premier ministre mais day flagrant jël Mansour Faye premier ministre moom Macky Sall loolu moom réew mi lay tàkk Les nag am nañu occasion pour jël ab institution bu mag jox ko Mansour pour defal ko une promotion de la day am dimension homme d'état parce que Mansour dañ koy construire ñu koy pour que mu mën a am dayop mën a taxaw laaj réew mi parce que loolu mooy gis-gis bi fipp rek fipp mooy farata gi ku fippuwul rek musibaam li may wax yëpp fipp rek xeex rek def ni libu yi rek waa Ngor waa Wakaam waa Yoff barki démb li ñu def démb barki démb xeex rek dee suba ngeen teg ko ci koy teg tey jeex na suba rek ñu làbbali xeex rek maa ngi ko dégg mu am nañu ay matuwaay ay jëmtuwaay wax yi tappaleen yooyu yëpp dara xeex rek xeex rek dem bindu ci ak xeex amul toog ak moom amul négocier amul dialogue dialogue wuñu waxuñu ak moom journaliste bi xaw ma xibaarkat boobu laaj na ko ne ko loo xalaat ci prisonnier politique yi bàyyiwu ko sax mu wax mu ne ko prisonnier politique amul ci réew mi ay ñuy taala fi nekk ñuy toj ñu jàpp leen justice nag def seen liggéey nee na prisonnier politique amul ah kon ñi ñu jàpp ñu nekk ci kaso bi ñëpp dañ doon taala ko toj ah ok mi ngi suñu kanam dina leer ñu mën a journaliste yi nee na benn délit de presse amu fi jàpp ñu fi benn journaliste journaliste yi jàpp ñu kenn ñëpp a def seen liggéey macha allah waaw jàpp ñu fi Pape Alé jàpp ñu Pape njaay Cere Maxu Mandela nekku ci kaso bi benn journaliste daal amul territoire ci réew mi macha allah lépp a ngi dox problème daa amul Sénégal gi Macky Sall wax daal bokkul ak suñu Sénégal gi loolu tamit jaadu na foofu mu toog palem boobu di nappaaje lépp di ko fa fekk moom moom mi ngi àjjana ñun ñoo nekk moom xamul ñu nekk ci kaso yi Sénégal gi ñu koy wax mu xam ko mooy Sénégal goo xam ne jàppuñu fi kenn tëjuñu fi kenn ñu nekk ci kaso bi ñëpp dañoo tooñ ñu nekk ci biti ñëpp tooñuñu ñoom Bougazelli tooñuñu ñoom Suzanne Camara tooñuñu ñu saagakat yi ànd ak moom kenn tooñu si ñu ànd ak ñëpp kenn tooñu si ñu tooñ ñëpp nekk ci kaso bi ñoom dañoo tooñ Macky Sall Sénégal googu la yore nee na nee na Sénégal gi daal lii am moom daal lépp ngi dox macha allah jaajoole amu fi justice bi baax na lépp a ngi dox ku nekk ci kaso bi da ngaa def loo wërtu def ku nekk ci biti defoo dara ñoom bugaazir yi ñoom defuñu dara sàcckat yeeg reykatu nit yeeg euh, accidenté yeeg mandikat yeeg nappaayeeg yeeg trafiquant de faux billets ko jaaykate cocaïne ñoom nekk seen kër yi jama ko ñëw defuñu dara lu garaaw loolu la Macky Sall wax très bien moo ko wax de. Alaaji Assane Gueye du journaliste bien sûr. boo ko dégloo ni muy posé question nga xam ne kii ab la li muy wax sax ñëmewu ko amul sax futur nga xam ne ñii lu ñuy seen i cinéma def def seen i alaaj alaaji alaaji Moustapha Guèye nan la dégg ne alaaji moom alaaji Assane Guèye kooku toujours c'est pas un journaliste question yëpp dañu ko préparé moo tax balaa pare sax mu tontu ko fëccoog moom ndax xam na li war a tontu yëpp dañu ko préparé seen tappale yi ñu nekk la war a baax nee réew mi ku nekk ci kaso bi rek da ngaa def loo wut a def moo xam makee wax de ñoom si toor nduur ñi violé ba certificat bi ñëw ne dafa violé ba ñu ci def lépp médicalement ñu am ay preuve si toor nduur woo yaayu ndaw si di négocier pour joxe xaalis ñu baal ko mu bañ a siiw audio yeeg ñu jox ko ñoom ñu génn na dañuy bàyyi si toor mu ñibbi ndax amuñu ay firnde yu doy bàyyi ko mu ñibbi këram dem korite ji këram ci xale boo xam ne dañ koo sàkku siif ko xale boo xam ne mineur 17 ans viol sur mineur circonstance aggravante ñu war ko tëj à perpétuité ñu bàyyi ko mu ñibbi si tool bi parce que moo ko Macky Sall ànd waa Fatick la Macky nee na réew mi lépp lañu dox ku nekk ci kaso yi da ngaa def loo warut def jamono boobu ñu ngi topp ay nit ci ay viol yoo xam ne dara du ci dëkk topp ay nit ci ay diffamation yoo xam ne suñu 29 milliards lañu sàcc Macky Sall nee na justice bi moom ñu ngi dox macha allah yéen ñëpp ngeen koy dégg kii mooy doomu raam tey saw kotu lal Mais roi. De... ñu laaj ko ne ko loo xalaat ci pétrole bi dix pour cent mu ne Sénégal amuñu dix pour cent ñu ne ko lu ñu am mu ne am nañ entre dix ak vingt pour cent kan moo moom loolu mu ne Petrosen moo ko moom te Petrosen Sénégal la ko moom kon Petrosen moom moo ci jël dix pour cent yi dafa te comme amul xaalis ñu jox ko dix pour cent bu ñu demee ne ba pétrole nag ñu yokk ko vingt pour cent. ñu ne ko vingt pour cent kon bu baree ba bari moom lañ ci am mu ne xanaa ak taxes yi yi ñu ciy fay subhanallah kon daal 80 pour cent tubaab yee ko moom ñun 20 pour cent lañ ci am bu baree ba bari entre 10 pour cent ak 20 pour yi ñu ciy fay yi ki tubaab yi di fay <laughs> waaw Macky Sall kii yéen est-ce ko dégluwu leen ko de pétrole Sénégal ba gaz bi 10 pour cent lañ ci may ci code minier bi su yéegee ba yéeg 20 pour cent la Macky Sall la ko wax de. ñu ne ko loolu képp képp képp mu ne xanaa ak impôt lempo yi ñu ciy fay buñ ko ci doolee vingt pour cent plus l'impôt yi maanaam kon quatre vingt pour cent yi tubaab yee ko moom téeméer boo jël ci gaz ba bi juróom-ñett fukk yi tubaab yee ko moom ñaar fukk yi dong lañ ci ak l'impôt bañ cey fay bi tubaab yi fay yóbbu maxee ko wax de subhanallah lii dafa jar bu subaa Macky Sall wut a dund wut a fanaan ci réew mi Macky mooy doomee daam bon xool suñu gaz ba pétrole bi ni ko ma Macky def qui mooy doomeram dëgg dëgg dëgg dëgg moo wax de ay dem Arabie Saoudite dem Dubaï dem Qatar pétrole gaz ñoo ko à 100%. pour cent bañu koy seexal tubaab bi 80 lañu bi Sénégal 20%. safaanu la naar yi def moom na Macky Sall def naar dañoo jël li ëpp ci seen gaal seen pétrole téye ko tabax seen réew Dubaay ak euh, Qatar ak yooyu Macky Sall moom jël suñu alal jox ko tubaab bi bàyyi Sénégalais yi vingt pour cent yoo xam ne bu baree ba bare moom lay doon ak ay taxes moo taxaw tey wax ko ñëpp di ko dégg kii mooy doomeraam mooy mbaam waaye dañ ko récupéré billaahi dañ ko dañ ko lay Sénégalais lii faalewul sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoo amul fulla moo tax Macky yàpp ñu li mu def yëpp dafa xam ne sénégalais yi duñ jóg moo tax mu def lu ko neex